الحمد لله الحمد لله حق حمده أمرنا بالإكثار من ذكره فقال يا وأن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه fa allahuma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa asna xadimihi amma baad fa ya ayuha almuminuun inna li dikri llahi tabaraka wa taala ahal ذكرنا إياه فاذكروني أذكركم وحين يصف أولي الألباب وصفهم بأنهم الملازمون للذكر في جميع أحوالهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذم المنافقين سببا للفوز كثيرا لعلكم تفلحون وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allahu azza wa jal ana inda danni abdi bi wa ana maahu xiina yadkuruni wa qaala sallallahu alayhi wa sallam wilaaya faman wufiqa lildikri faqad utiya almanshur wa man suliba aldikra faqad uzil ويقول مولانا العبد الخديم رضي الله عنه أما دوام الذكر فهو أكبر من كل ما كان ذكر ذي الجلال منبها ومحذرا من عاقبة إهمال أوراد الذكر من لم يدم شيئا من الأوراد مضيع الوقت على التمادي falaa lahu yowma yujaaza annaasu illaa garaamun wa jawan wa baasu gëm yàlla ñépp na di tudd yàlla lu bari te di ko sàbbaal suba ngoon seere ne amul benn buur ba yeyoo jaamu budul moom seere ne sunu sang sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab jaamam la di ndawam lu yónni ci mbindeef yépp dib soppeem dib xaritam bootam ak ci liggéeykatam bi tudd yàlla tabaraka wa taala am na dayo bu rëy am solo lool itam loolu moo tax sunu borom tabaraka wa taala ci alquran mu digal ñu ne nañu koy baril wax ne na tudd yàlla sa borom lu bari sa di ko sabbal suba ngoon ñu baax ñi nga xam ne dafa wax ne ñooy ñi am xel tey jariñoo seeni xel dafa wax ne mooy ñi nga xam ne dañuy takkoo ak tudd yàlla ci seen melokaan yépp bu ñu taxaw dañuy tudd yàlla bu ñuy toog dañu koy tudd bu ñuy tëdd dañu koy tudd sunu boroom it wax ñu ci biir alquran ne lii sabab bokk na ci lii sabab texe àdduna ak mooy ñuy tudd yàlla lu bare bari jële nañ sayidna abu hurayrata radiallahu anhu mu ne waxaat ne jëf ji gënal yàlla ci jëf yi mooy nga fexe ba bis booy faatu fekk sa làmmiñ tooyoon xepp ci tudd yàlla ci sag dund am na kenn ci nit yàlla yu jëkk yi ko waxoon ne caabi wilaaya moo mooy suñ boroom dàq na la ci payam ba cheikhul xadim radiallahu anhu wax ne saxoo tudd sunu borom tabaraka wa taala moo ëpp solo gën a màgg ci lépp lu ab taalibe di saxal ak bari la waxaat faneen ñam wi ëpp solo ëpp yiw ëpp ca masalikul jinaan ak di xamle képp kuy sàggane tudd yàlla la ko cay fekk boo lëgee mu wax ne képp koo xam ne saxalu dara ci ay doggi tudd yàlla di sànq dundam am njàqaree ku tiis aku naqar aku mettit te du am dara loo xam ne dana ko saafaraal bokk yi jamono ji ñuy dund xam nañ ne jamono la joo xam ne jamono ju metti la jamono la joo xam ne bari yeeg mettit yu bari yeeg jafe-jafe jamono yu yóbbu na leen seeni xel di fër-fëri ak di tiit waxtu wu ne ñenn ñi mu yóbbe leen sax amatuñ jenn yaakaar seen dund loolu nag bu amee munta ñàkk kon ñu jéem a wut yooyu menn pexe rek la lenn saafara rek la te mooy bari lu ñu tudd suñu borom tabaraka wa taala borom moo wax ci alquran ne yàlla rek mooy lii may xol mu mën a dal mooy tax lii mooy lii taxit xel mën a ànd ak borom. ñu bàyyi xel sunu borom tabaraka te di ko waggar ci suñuy jëf yépp waaye boole koog di bari luñ koy tudd di dénk itam mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju ci këri diine yi mooy li ñu tudde tarixa yi ñu delluwaat ci seeni kilifa laaj leen seen wërdu yooyu nga xam ne ñu leen di fàttali bu baax a baax a baax ak a soññu ci alwirdul maxuus bi nga xam ne sëriñ bi moo ko jëlee ci borom tabaraka wa taala te bindal boppam ne gannaaw bi mu ko jëlee ci boromam di ko jëfandikoo nam ko war a jëfandikoo digal na mbooleem ñu aju ci moom góor ak jigéen ñu di ko sax sartam dox diggam ak lépp lu muy bañ ak lu muy wattandiku itam àdduna ak laaxira te seytaane du ko jege dolli ci wax ne ab dog la boo xam ne mën naa wuutu ci nit dog bu mën a doon te amul benn dog boo xam ne mën na koo wuutu kon ñuy ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu boole musal ñu ci sawar yërmande te defal ñu tawfiq sàmmal na suñuy kilifa ka ca jiitu mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne ñëpp xam nañ ne yitteem jënd la mooy lislaam ak jaami suñu borom yi suñu borom gën koo sàmm gën koo taxawu gën koo dëgëral gën koo kattanal. xam ne itam lislaam في زمن تكدر فيه صفو الحياة وتكاثرت المحن والدواهي وطبع العيش القلق واليأس فلا بد من البحث عن حل للخروج من الأزمات والاضطرابات النفسية وإن ذكر الله تعالى وعليه fa inni usikum wa nafsi almudniba bi taqwa allahi taala thumma bil ikthari min dhikri thumma usi maashira mansubi tariq turuqi sufiyati bi muraajaati mashayikhatihim li axdi awraadihim wal amali biha wa xaasatan al wird al maxuud isticmaalihi muddata muksihim wa muksihinna fi dunya bila tafritin anhu abada wa qaal inna man waazaba alayhi maa shurutih yadxulu ljannata bi gayri xisaabin wala iqaab wa yamnacuhu allahu min almakaarihi fi dunya wal axira wala yaqrubuhu shaytaanu almarid wa yakfi hada الذاكرين الله كثيرا